du xool potab jàmm. bokk naa gars yi de gars yi ñu leen ko cautionné. mu leen may dara. Eh, eh, eh, fayal fayal fayal. fayal. kii fu mu nii. yow xanaa da nga dof. yow yaay kan ba ñëw si kër gi naa dañ fiy tuux. xaala xaala what the hell is that. kii fa la jógee. mais kii kan Yeah, it's a home is a brother from another mother. But brother from mine, yo man. My master's to my home, man. What the hell is that? Eh, mais what the hell is that nga waxaat dëgg ah yow yaay kan ba muy eh, kii mooy kan bay dugg sama kër dif tux si weeru koor gi sama kër ngay nekk fi naa day brother from mine. What kër? I got somebody like you, you know what nigga? Like you go you re. Mare fini. Waay yow. Hala dama am same right yi nga am si xam bi. Kii maa ko host suma chamber. Mais chamber la nga fi am noo fi dugalal sa ay chamber. Yeah, I got the right. suma gain la maa ko dugal suma càmbar it's just like that. les deel góor réew ah, yow fii amuloo fi dugal si ay càmb ak ay ay ay chambre dégg nga li ma la wax yow da lay héberger ngay taxaw fii di ut ko héberger hmm. yow yaa sob ta fuy hmm. ah ngay dugal borom cheveux naturel bi eh. xaw ma yàmbaa lay tux xaw ma pon lay tux weeru koor gi ci kër gi ngay nekk fii di am looy wax. Eh, man maa ko hostel maa ko héberger suma nekk man it's just like that. what's problem. wala star man wala star man ma dugal fi suma xaw ma am naa fi right man. amoo fi tos. bay koy fat the same right like you ñoo the same mom same dad and same black same mom dad am I'm a right life, I'm a right bokkatu ma yow slime black black boy fro your tos so what's happened Happened yow mi laa here. Then you réew about the subject but at the second bengen si bokkuñu fi tos ma yow salaamaaleykum maaleykum salaam dafay dafay yàgg loolu en franc jamaay en franc jamaay ki rien du tout nga naan jamaay ki man gis naa bomar So su sebe naturel bu ban bii nga naan jamaay man ma jàkkaarloog bomar la wax ak keep it please keep it It's been a while, so speak louder on my body. What the hell mais what the hell old brain dama sonn ci yow. Talk about the subject. mais ça va créer rien nga nit ñi waaye yow. non. eh eh yow waxal xaw ma non xaw ma sii. dégg nga ma la yow yaa gën a ñàkk jom ñëpp kër gi xaw ma ñaata laa la fi daax ak sa kanam gii ma ni ciment bu wow